maanaam benn somme bi nga xam ne boo boole woon PIB àdduna bi yëpp maanaam tollul ni mel ndaxte vingt milliards de millions de milliards la daan Google ndaxte wax na ne respecté wul ay compte ay daan yi nga xam ne dañ ko koo tegoon te xam ngeen ne euh, lii nga xam ne ñoom ñooy gafaa yi wala réew Amérique wala Occidentaux yi dañuy faral di wax ne réew fédération de Russie dafay jëfandikoo. lu ñuy wax propagande wala dafay salfaañe seen i démocratie di dugg ci ay élection di wut lu ñu wax ay troll ay faux contenus yi nga xam ne pour influencer lii nga xam ne moom mooy votu euh, maanaam ci xam ci démocratie occidentale yi ndaxte élection bi doxoon ci diggante Donald Trump ak kii nga xam ne moom mooy Hillary Clinton wax nañ ne ay enquête fédérale amoon na yu wane ne Russie dugal na ci loxoom ak ay élection yu bëri yi am ci lu ñuy wax Union européenne wala ci lii nga xam ne moom mooy réew pays occidentaux yi léegi nag xam ngeen ne ay ay ay daan yàgg naa am mu jóge ci gafaay lu ci lu ñu wax position dominante union européenne da koy def def na ko Facebook def na ko Apple def na ko Amazon waaye somme bii nga xam ne moom la fédération de russi joxe maanaam boo boole woon lépp li nga xam ne PIB mondial la sam boobu noonu kenn amu ko ci àdduna bi mu mel ni kon mbir mi daal xaw ma ndax euh, xam kenn xamul daal lu muy niroon léegi nag ci réewum Sénégal kii di Ousmane Sonko dafa wax ne. am na benn compte bi nga xam ne fekk nañ fa 1000 milliards loolu nag gaa yëpp nee nañ mënut ta nekk fii ci réewum Sénégal ab nit am ab compte bi nga xam ne am na 1000 milliards waaye de man de du wax ne lépp li Ousmane Sonko wax dëgg la waaye am nañ mbir yu bëri yi nga xam ne wax na ko gis nañ ko am na yi nga xam ne aussi war nañ ko ci léegi nag xam ngeen président Macky Sall dafa xaatimoon benn euh, accord ak réew mu ñuy wax Barbade bu nekk paradis fiscal paradis fiscal ba leen ko déggee mais réew yi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne dañoo am alal te bëgguñu fay l'impôt wala bëgguñu ñëpp xam seen alal dañ ko fay yóbbu di ko fa làkk te am na ay wikileaks yu bëri ay scandale financier yi nga xam ne ay homme d'affaires ak ay ay homme politique dañ doon jël seen xaalis di ko nëbb ci lu ñuy wax ay paradis fiscaux te président Macky Sall bokkoon na ci léegi nag El ñëw na dëggal ne compte bi nga xam ne fekk nañ fa mille milliards nee na lu wër la te élection yi bu jeexee dinañ ko indi lii nga xam ne moom mooy firnde yi léegi nag man su ma doon maay journaliste sénégalais yi maanaam bu ñuy gaawante li tamit di wax naa lii amul mun ta nekk nañuy faral di gëstu di def ay démarches loolu mooy lii nga xam ne képp ki nga xam ne journaliste nga da nga war def li wax investigation di di di dem à la source di yëlbët di di di yëddu di xool di xool ndax wax bi mën naa nekk wala mënta nekk waaye toog sa bureau toog sa sa clim ngay wax ni li nit ki mu wax mënul nekk loolu moom bokkul ci professionnalisme te Afrique bokk na ci lu ñuy gàllankoor mooy lu ñu wax rek ñu ne c'est impossible bu ñu nee dañuy suppi mën a ñu ne c'est impossible jéego bu ñu dara teg ñu ne c'est impossible euh, Sénégal levé na cent quatre vingt milliards ñu ne fan lañ jaar parce que signature bi baaxul ak lan mooy taux bi loolu moom wax dëgg defe na bu ñu bëggee avancer nañuy am un esprit critique mooy maanaam di bañ effacé wala di bañ di diingat te du ñu jéem a gëstu du ñu jéem a xool lan moo tax ñu wax lii ak lan mooy soubassement les tenants et les aboutissants waaye di toog fi nga toog rek di diingat loolu moom tant que tàggoo ñoo ko moom. dina jafe ñu jot ci lu ñuy wax développement parce que développement da ciy boole lu ñuy wax esprit critique dafay boole lu ñuy wax audace politique aussi ñëpp bu ñu la waxee ta nekk nga ne lii mun ta nekk seen xarit la woon Léon Baltasar le caméléon di leen ñaanal